biir waxam ben ben ben ben nit yi nga xam ne léeg-léeg ñu sànni ay ay ay ay ay kàddu waaye loolu loolu kenn mënu ko ko ñëpp ko am ñëpp ko am ñëpp ko am am na ñoo xam ne fi mu ne euh, li mat lañ leen wasila te kàddu yi ñu leen di sànni duñ leen ko sànni mm-hmm. te ñu benn benn yooyu ngay dégg ñuy sànni ay kàddu it dañoo yëkkati seen seen kàddu ci kaw rek waaye ñu ngi leen di sànni loo xam ne ñooy <laughs> xam bu ngeen ko déggoon de de waaru loolu àdduna loolu la baaxoo faw nit ñi di sunu réew mi nag moo ci raw moom dafa bari nit dañoo añaan dañoo soxor ku soxor euh, loolu dafay baaxoo lu mel noonu dafay baaxoo di jël làmmiñam di ci wax lu ñaaw ci di ko jëme ci nit ñi ñooñ ñëpp nag waruñoo gàllankoor ku bëgg a dem bu dee yooyu mu ngeen def yéen daal fexe leen ba euh, defar seen bopp rek ci yar ci teggin ci ci ci ci ci gën a rafetal rafetal di rafetal nu mu gën a rafete rek euh, ki ñàkk mooy ki nga xam ne suñu pas am benn tuyaaba kooku moo de di wax rek di wax rek lu koy joxe bàkkaar di xas di ñaawal peu de temps. léegi nag wax fi de koy et li